di euh, ñu ngi koy nuyu bu baax moom nag euh, daa bëri nationalité waaye defe naa bu Sénégal bi la la tànn ah. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax. merci beaucoup. Euh, tey nag nga gagné li nga xam ne moom mooy trophée meilleur clip rap donc lan la lay def tey le fait que nga ñëw gagné trophée bii nii alors que bari woon ngeen ñu bëri aussi amoon nañ yaakaar yow nga ñëw roppi ko seen loxo. Mm-hmm. pour moi vraiment c'est Dieu j'ai beaucoup travaillé sur mon premier single. Je travaille sur ma musique depuis 12 ans. J'ai toujours eu la patience et j'ai toujours cru en moi. Et après avoir fait ce single, c'était mon premier single, j'ai décidé de le dédier à mon pays, au Sénégal, parler de ma culture, euh, mon ethnie. Donc pour moi, euh, le fait de gagner ça, c'est pas juste pour moi, c'est pour toutes ces filles aussi qui n'ont pas gagné. Elles n'ont pas gagné physiquement, mais c'est dans la tête, quoi, you know. Peu importe qui gagne, that's what's up. Elles sont aussi très bien, très talentueuses et je les shout out toutes, toutes les rappeuses qui ont qui était nominée aussi, and du courage à elle. Euh, si je ne me trompe pas, vous avez aussi travaillé avec euh, Safari. Si je... Donc comment vous avez fait pour intégrer déjà euh, le groupe et euh, faire partie du, de leur projet mm -hmm. En fait, euh, j'ai je n'ai pas intégré le groupe. Elles ont découvert ma musique à travers quelqu'un et elles ont tout de suite voulu travailler avec moi. Et elles ont toujours cru en moi, elles m'ont toujours poussée. Me... C'est mes grandes sœurs, je suis leur petite sœur. Elles, me... elles sont vraiment présentes dans ma vie, dans ma carrière et vraiment, elles sont mes, mes mentors en fait. Euh, donc ça passé naturellement, le courant est passé et tout s'est passé très naturellement. Donc félicitation pour le prix. Euh, un mot pour vos fans aussi. Euh, merci à tous mes fans, je vous adore, à tous les gens qui me supportent. Gis na seen message yi seen encouragement yi kontaan na trop. Euh, we're together, bonne soirée. comme Cheikh Anta ñu ngi jàkkaarloo Magui donc moom artiste rappeur rappeuse la mais léegi dañ gis nañ ko ci téléfilm yeex yooyu mais balaa loolu dañ koy bàyyi mu nuyoo ak waa Sénégal may ñu benn affaire après ñu ñëwoo yeah ren ngeen di wër maa fële ci suuf mais ñi fi nekk ñëpp basique ba tey dañu leen di coach kii rab di xàccu ne ko loolu dafay tàngalay coach ke ñëw bëgg ñu forcer taat yi soxla wuñ ko ñu oom nangu da yombal ñus ku toog ci trône bi maa la uuf bañ ko jël ngan di kuuli daloon konde moo lay xuuf tojoo leen fenn ni ku kande xar seen ruq duus interprète yu am classe yi bi gëb naa seen roue de secours yee maa ngi leen di nuyu waa Sénégal donc it's your girl Maggy artiste chanteuse rappeuse nominé aujourd'hui si cérémonie Only Woman Awards si. yow dañ la nominé si catégorie meilleure rappeuse. catégorie best clip rap non cette année amul catégorie meilleure rappeuse mais am na catégorie best clip rap. Euh, donc yow loolu la la lay def tey sénégalais ñu ngi lay commencé di découvrir c'est vrai que yàgg nga ci game bi. mais euh, gars da nga xaw a yar woon mais léegi da jékki-jékki rek génnee jikko bandi bi noonu. mais jikko bandi bi da si am parce que ñoom loolu lañ bëgg ñoom loolu lañ bëgg loolu la ñuy xaar moo tax ñu may leen clip réew may leen ay yeneen affaire ak yeneen ak yeneen nekk aussi si téléfilm yi comme tu le dis si série impuissant di ko jeex xam nga show business la donc musique ak cinéma yooyu yëpp ñoom ñoo ànd donc voilà loolu la woon rek mais tey nag kontaan naa bu baax parce que nekkul première fois may nominé wala di gagné prix fii ci naa révélation hip hop ba tey ma nekk woman of the year donc euh, donc mbégte bu mag donc la may amal bokk na ci sama jaar-jaar bokk na ci yu gën a mag yi nga xamante ne euh, recevoir naa ko di am contente bu baax di biga baale sama frère Doucey moom nga xamante ne yàgg nañ donc lii moom du lu ndaw la si si li muy am di ko wax ne le meilleur reste à et ñu ngi koy encouragé bu baax a baax di ko remercier aussi li muy sargal jigéen parce que xam nañu affaire yi nu mu demee fii jigéen ñoo xaw a des ginnaaw mais mu ngi ñuy may loxo bu baax a baax donc mbégte rek lañ ciy am. voilà ci xaw a des ginnaaw boobu sax laa ñëw gis nañ ni que ba ci flow bi xam nga jigéen ñi ñu ngi ñefe mais pourquoi jigéen ñi tamit mu ñu ñu am benn c'est vrai que du flow bi rek moo fi nekk mais tey dañu gis euh, ci jongante yu bëri jigéen ñi tout le temps day day xaw a des ci rab bi day mel ni li liñ doon xeex lu yàgg ba tey atteindre li nga xam ne moom mooy objectif. waaw dëgg la parce que comme flow bi nga wax ñu ngi ci ba neuvième édition ba tey jigéen mosu ko gagné kon ñu xam ne donc jigéen des na lu bëree bëri loo xamante ne war na ko prouver xamante ni ëpp doole parce que góor ñi ñooy jury parce que góor ñi ñooy organiser même si ñu ngi ci biir équipe bi ñu ngi ci biir lépp mais je me dis ko des na donc je me dis que voilà des na métti na mais quand même yàlla baax na quoi et di leen gën a ñaaxaat rek di leen wax ñu gën a jàpp xam ne genre metti na xam nga ne musique neexul déjà il te faut beaucoup d'investissement pour nga euh, nekk ci sa carrière pour nga def ay produit et boo amul ñu la accompagner doo génn bu baax mais bon yàlla baax na comme on dit passion rek ak euh, gëm-gëm loo gëm rek dina ñëw un jour. ñu ci li nga xam ne moom mooy euh, série euh, impuissant bi ngay wax donc bu nekk série bu bees la. soreegul euh, kii bi épisode yi gars yi ñu ngi koy suivre ñu dem ba benn instant gis la si yow ak sa yeneen naataango ak tonton xumaan donc nan nga def ba intégré li nga xam ne moom mooy série boobu noonu. alors ni ma def ba intégré ko xumaan moom moo gis sama profil euh, mu gis ne dina ko soxla ci euh, film bi ci la ma euh, apporté mu nekk loo xamante ne défi la woon parce que déjà mosuma woon jouer série donc am di ci ànd ak Even Prod aussi ñu nekk ñu neex a liggéeyal mettre la dans de bonnes conditions essayer tàggat la ba nga xamante ne dañ ci génn te déjà loo xamante ne la suñu suñu nature la suñu environnement la donc xumaan dañu koy faciliter de sorte que voilà dañ koy adopté wu facilement mu nekk aussi histoire bu intéressante boo xamante ne genre gis naa ne touché na sénégalais yëpp et bëgg nañ ko bu baax a baax. ñu gis ni aussi clash bi même bu nekk ñu bëri xamuñu ko mais ñi nga xam ñoom ñooy dégg déglu hip hop. bu baax baax xam nañu yéen ba ci jigéen ñi am na ay clash nu mu demee noonu man dama yaakaar ne jigéen ñi xam nga wala hip hop hip hop la rek. non mais euh, clash hip hop la bokk. ci hip hop mën nga show kenn comme mën nga bind picc ko. mi ngi mel ni maa am lu ma la bëgg a wax rek mu ne sama xel def ko sama texte loolu kese la soit ki ko dégg mën na ko dégg répondre soit mën na ko dégg bàyyi ci biir donc loolu mooy indi clash donc euh, voilà. pic la ñëppay pigante game la ñëppay jouer comme ñëpp noonu la demee. yow mbaa ki ngay clashante ñeme nga ko daa bëri doole. kan lay clashanteel kan la ñuy clashanteel kan la ñuy clashanteel. amu leen amoo koy clashanteel yow. waxal kan lay clashanteel. bëgguma jaxase affaire yëguma ko bëgguma mel ni kumbis. <laughs> yow est-ce que doo kumbis junior mbaa mu yebal la rek. <laughs> kon na donc ñu ngi lay jëfal bu baax a baax. jaajëfate jaajëf merci waa Sénégal merci beaucoup. Euh, Cheikh Anta ñu ngi fii nag ak beneen rappeuse euh, ñu bëri dañuy yaakaar ne artiste rappeuse yi xam nga dañuy. ay casquette la ñu dóor jean déchiré mais am na ñoo xam ne macha allah bu ñu daagoo rek boo leen gisee da nga naan non ñii moom mooy moom nag ci uru ay na yi la bokk bàyyi ba bàyyi la nga nuyu wax ak waa Sénégal déjà nga présenté. salaamaaleykum waa Sénégal donc je m'appelle euh, Maxis Black artiste voilà et di kontaan ci mhm. tey nga ñëw ci li nga xam ne ne euh, moom mooy Only Woman Award euh, dañ la nominé wala da nga ñëw juste pour assister. non dama war a dama war a jouer en plus dama bokk ci prix honoré fekke donc si waaw maa ngi ñëw waaw. c'est la première fois nga koy assister ou bien. waaw pour être franc c'est la première fois moo koy assister parce que année passée dafa nekkoon maa ngi woon ci yeneen si beneen projet bi nga xam ne mënu ma mënu woon tax mu assister mais ren moom maa ngi nii waaw ñëw fii. ni ko mag yi waxee sànq rek euh, li ci flow bi laay ñëw parce que bu mu génne yàggul ñu ngi woon ci neuvième édition ba tey ay artistes rappeurs ñu ngi fi di ñafe mënuñu fexe ba gagné ko ça veut pas dire que nag buñ ko gañewul liggéeyuñu mais dafa nekk ci loo xam ne ne tey ci hip hop boo ko gañee aussi am na fu mu lay yóbbu tey même bu nekkee ñëpp mënuñu gañe mais tey benn jigéen bu ko gañe woon au moins dina ñëpp dinañ ci fier nan nga gisee liggéey bi dafa eggul fu mu war a egg wala dafa des de trop bon liggéey bi gars yi ñu def seen waa affaire daal doo comprendre parce que man di wax ak yow bokkoon naa même année que Magui voilà donc dem nañ ba final euh, macha allah mais xam nga rek li yàlla di def pense que ku liggéey ba dem final rek parce que am nga yenn potentiel yi tu vois. mais le fait chaque année jigéen daf ko war a jël parce que ñun ñëpp on s'attend que ah année bi de bu jigéen ñi xanaa ren jigéen na ko jol mais bon mais c'est dommage que jigéen na ko jël et que peut-être aussi bon ah man daal xaw ma peut-être ñun ñoo liggéeyul wala man comprendre ma tu vois voilà mais. waa voilà ren jigéen dina ko jël tu vois mais def demeewul noonu nee na la demee donc waa sant yàlla rek nañ nañ nañ bu ñu xaar daal nañ dem rek peut-être euh, jour yaa ngi jour si jour yi voilà jigéen dina ko mës a jël incha allah voilà. ñu gis ni euh, comme góor yi ni ñu koy defee clashante ak yooyu. souvent aussi euh, jigéen ñi am na ci mais bëriwul xaw ma da ngeen koy camoufler wala mais des fois moom yenn saa yi aussi day day tàng jër jër jër. yow nan nga koy dundee yaa ngi ci biir classe bi wala yow da ngay def musique boo xam ne ne euh, c'est vrai que euh, pic ak classe ci rab la bokk yow est-ce que da nga koy boole ak ci li ngay def wala doo ko ci def. ba man vision ma kenn man sama carrière ma musique parce que dama jóg nii dama obtenir de la musique donc je fais du rap donc euh, gisuma importance tey jii naa ne nekk ma war naa def sama sama clash ko mais bon nekkuma si avis ñeneen ñi en fait man je parle de mon avis personnel en fait tu vois donc amuluma kenn problème. problème je fais ma musique su ma sentiree wax dara du ma koy wax mais xam aussi tamit game bi jigéen ñi je pense que ñu ñëpp ay xarit lañ ñun ñëpp amuñu ay ay différents en parce que quand on se voit xam nga dañuy kafoore affaire yooyu noonu parce que bariwuñu comme je dis tout le temps bariwuñu donc ñu ñu bariwuñu dañuy mën nañu jàppalante tu vois mais pas ñu nekk di indi ay problème ou quelque chose comme ça góor moom loolu moom seen yëf la ñu <laughs> ne ko bàyyi rek. voilà ñun nañ continuer daal suñu carrière voilà ñu xam ne lii moo ñu tax a jóg et ñu essayer def le maximum possible pour mën si percer pour mën a egg aussi ñu tamit euh, benn benn benn niveau bi voilà donc je pense que loolu moo gën a moo gën am importance que nekk ci affaire yoo xam ne peut-être dalay dalay voilà à part euh, def lan lan à part loolu lan nga nekk di def. waaw maa ngi ci série yi waaw maa ngi ci série yi voilà joué série voilà maa liggéey aussi donc en même temps je fais ma musique. mën nañ considérer que actrice nga en même temps. waaw ouais, ouais, je en même temps parce que joué naa ci ci ci série euh, si mën nga ñu rappeler yenn série comme ça après ñun ñu mën a daw. waaw joué naa ci série wala boog comment va la jeunesse joué naa si ma nekk actrice principale bi foofu noonu voilà boobu laa joué voilà série boo xam ne aussi ça parle la musique voilà. donc ñu ngi ci weeru jigéen ñi muy mois de mars aussi euh, yéen artistes yu jigéen ñi ban euh, liggéey ngeen ci def ci at bii nii wala aussi yow nan nga gisee li nga xam ne moom mooy 8 mars bi nga xam ne moom moo génn yan yan yan xeex ngeen taxawal pour xeexal li nga xam ne moom mooy jigéen ñi. bon en tout cas daal man lu may wax mooy leen jigéen ñi dañ leen war di dem dooleel tout le temps parce que je pense que époque yi nekkoon ak léegi bokkul ci kër da ngay gis jigéen tellement que c'est c'est dafa dafa rafet. nga dem benn endroit nga gis góor fii nga donc li may wax rek mooy tout le temps nañuy nañuy épauler quoi nañuy épauler duñu duñu duñu duñu ñu dooleel tu vois duñu doole parce que ñun tamit ci société bi lañ bokk te ji góor bu demee ba liggéey donc ñun tamit on peut faire pareil tu vois et que boo ko gisee sax vraiment man je suis je, je suis heureuse quand je vois une femme bu nekk di ñafe di ñafe tu vois di def ay affaires donc loolu sant yàlla la donc waaw nañ ñu gën a jàppale rek ñu gën ñu jàppale gën ñu dooleel. voilà parce que comme ça ñu existé donc 8 mars mënu ñàkk parce que jigéen ñëpp liggéey nañ ba sonn xam nga voilà donc nañ ñu delloo ñu njukkal 8 mars ñu wax moom dëgg neexul <laughs> merci beaucoup